tey jii focus culture Ibou Diouf lañ ci àndal mu ñuy euh, wax ci li ñuy duppee ëpp court euh, métrage mu di benn projet boo xam ne dañuy proposer formation maanaam di tàggat ay ndaw ñuy def ay court métrage euh, cinéma bien évidemment learning by doing lañ ko tuddee maanaam di def ngir mën a jàng bu baax a baax métier boobule ngir daal di gunge ñu ci yëngatu ñu gën a ñoŋal seen art boobule reportage kon Ibou Diouf ak Ibou Cissé ñoom ñi ñëpp di ay ndaw ñu bëgg a yëngu ci wàllu cinéma ci seen wet ay kàngam yu ñu ràññee ci àdduna wërngal këpp mu boole ay réalisateur ak i producteur di liggéey dama ñëw fekk dëkk bi kenn aidé ko lu cinéma amul woon ndimbal euh, ñi continuer di liggéey créer suñu modèle économique ba mu mën ñu may ñu defar film Alain Gomis boobu ñuy wax tey bu xam ni kenn fekkuñu si koom-koom bi wàllu Sénégal mais bu film bi taxawee moom moo tax Sénégal am étalon bu jëkk ñu jëkk def milliard ñu si président si cinéma sénégalais. seetlu bi bàyyeekoo ci li nga xamante ne moo soxal lépp lu laalee cinéma maanaam xarañte bi mu war a àndal bu weesoo motivation bi ñu ne nag dinañ ci boole ñoo xamante ne seen xamxam xam ci màcc. ngir ñu gunge ndaw yi alors ndaw yi nag doon mu yónnee ay programme yu bëri pour ma produire leen te leneen li ma seetlu woon mooy bind bi baaxul te producteur dafa nekk koo xam ne danaan la jox ma xalaat bu baax jox ma bind bu baax mu jëmmal jox ma film ndax man ni nag naa créé la ñu tuddi ëpp dafa mel na man product la dama producteur laa dama war a produire en abondance comme on dit en ëpp da nga war a jub donc loolu moo indi na jóg. on s'est gis naa ne formation bi lu mënuloon ñàkk la lu am solo la jamono ji seetlu bi mooy bëri na ay initiative yoo xamante ne ku ci nekk yaay def sa boor bi nga féete yu ñu bëgg mooy am li ñu duppee ëpp. ci wàllu cinéma te loolu yaakaar naa ñu bëri dinañ ci gis seen bopp leneen li ma gis mooy bëri na ay ndaw yu may gis ci plateau yi jamono ji mooy ay réalisateur yu xarañ fi mu ne ni nag jotaguñu def ay film yu bëri waaye fii ak at yu néew dinañ gis liggéey bu rafet. dans les trois quatre années à venir. court métrage ñu lancé woon ko ci atum 2014 ak léegi ñu ne nag dañ ci fas yéene gunge ay ndaw ci wàllu cinéma ñu am ci tamit taxawaay boo xamante ni. dina leen may ñu amal liggéey bu mucc ayib. programme formation mu am importance ci développement euh, dans notre pays. maa ngi rafetlu tamit bu ñu demee ba constaté nii ci programme formation yi am na euh, le centre Yenenga am na centre bu mel ni Coutrage mais am na yeneen initiative yi am ci université yi am na yeneen ki yu am comme ay Supaymax ak beaucoup de structures yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci formation bi. ëpp court métrage gannaaw bu ñu defee rek lancement bi. jamono ji nag fas nañ ci yéen ànd ak ndaw yi ngir gunge leen ci li nga xamante ne moo si seeni projet formation bi li ma ciy xaar mooy xam-xam bu bees en fait xam-xam bu bees parce que domaine bi ñu nekk nii day domaine boo xam ne euh, mënoo ci am xam-xam boo xam ne ci école bi nga ko amee en pour nga am ci xam-xam dëgg faudrait nga wàcc sur le terrain nga xool ñoo xam ne tamit amul nañ connaissance ci ci domaine bi loolu daal laa jàpp ne moo ñu moom laay xaar daal ci ci kii bi te sax ci formation bi mooy que xam-xam boo xam ne dina ma permettre ma mën a gérer sama sama avenir en fait. loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xamante ne ñiy yëngu ci wàllu cinéma amal nañ ko fii ci Sénégal moo xam waa sine Cinécap ak itam direction cinématographie lu ñu bëgg rek mooy fii ak i at yu néew ñu fësal yeneen talent ci wàllu réalisation. Eh, jërëjëf Ibou Diouf waaye ànd na yi tamit ak eh, yokk ay salle de cinéma ci réew bi de wala. waaw ci la bokk waaye eh, ñoom dañuy gën a insister si. ci ci formation xale yi waaw parce mm. que boo xoolee. toll woon nañ di cent vingt par exemple ñoo xamante dañu déposé woon seen i seen i dossier donc ay projet film ci loolee nag lañ tànn ñi nga xamante ni ñooy constituer promotion bi mm. ngir ñu tàggat leen ci métier du cinéma à savoir réalisation dañu bëgg daal fii ak at yu néew. Mhm. ñu gis yeneen talent yoo xamante ne dinañ mën a fexe ba Sénégal. am yeneen raaya ci ci biir àdduna bi rawatina ci euh, festival yi mel ni FESPACO ak Cannes donc euh, muy euh, vraiment initiative bu ñuy rafetlu mu aju ci wàllu ciné art mhm. te Sénécap ak 2015 ak léegi ñu ngi ciy béy seen waar donc mhm. ni mu ko waxee léegi sax bokk na ci li ñu valoir suñu premier Euh, prix étalon Yenenga mu doon loo xamante ne euh, ñi yëngu ci wàllu cinéma ñëpp a ngi koy rafetlu sax. absolument merci beaucoup euh, Ibou Diouf jërëjëf. salle de cinéma ah nouvelle technologie nga xam ne léegi da ngay toog sa néeg rek di seetaan. Euh, vidéo laa demoon mais bon xam nga bon y a rien de tel qu'une salle de cinéma aussi marché dafa bokkul nag dara am na ñu bëri ah c'est ça c'est ça ambiance bi rek le fait de se déplacer exactement c'est ça voilà cadre bi et puis tout euh, merci beaucoup euh, Ibou ci jàng ci focus bi léegi léegi dañuy soobu ci gan gi ñu dalal ko egsi na